daal di rek sàkku ngir rek jot li nga xam ne rek moo di ab xibaar maanaam demande fa informé son ci lu jëm rek ci juróom fukki woto ak ñaar muy 57 véhicules yi nga xam ne rek des ko joxe woon maanaam rek donate ñi nga xam ne ñoo di National Assembly members yi ci atum ñaari junni ak fukk ak ñaar muy 2017 ñu bari nag ci jamono jooje nguur gi daal dinañu leen xarab maanaam criticise ci lu jëm rek ci wàllu boobule donation muy woto yooyu nga xam ne dañ ko jox rek National Assembly ne dafa rek daal di salfaañe yenn ci li nga xamne rek moy principal of uh, suppression of uh, power manam rek xaajale uh, ci walu li nga xamne rek modi di doole ci rek sampeefu réew mi am ñu bari itam nag ñu jàpp itam nag sax ne nguur eh, njiiti réew mi ci boppam sax eh, ci nu mu jiite woon loolee eh, ci wàllu di nga xam ne rek mooy boobu lee jàpp nañ ne itam dafa doon loo xam ne sax warul woon ndax jamono joojee nguur gi wala sax réew mi amoon na fu mu rek tolloon ci wàllum rek nërmeelu ci wàllum koom waaye itam am na ñu bari ñu ci waxoon ci lu jëm ci wàllu transparency ak accountability am na ñu bari ñu ci wax ci sax lu ñu doxalee process boobule ci li ci bees nag li nga xam ne nag mooy bile kuréel di Edward Francis Small Center for Rights and Justice ñoom nag bind bi nga xam ne rek daal dinañ ko bind euh, njiit réew mi wala office of the president di ci sàkku rek ab xibaar ngir ñu jox leen euh, contrat boobule wala sax boobu lu jëm ci juróom-ñaar fukki wote yooyu ak juróom-ñaar yu ñu joxoon rek National Assembly nu mu rek mbir yi demee ñoom xibaar boobule lees rek daal di bëgg a jot ci boobule euh, li nga xam ne nag moo di press release a yëgal ñoom daal di nañu bind ab lettre euh, boo xam ne rek ñu ngi sàkku information ci rek office of the president muy rek ci màkkaanu euh, njiiti réew mi di ci rek laaj. lu jëm rek ci officiel source maanaam rek fi nga xamee foofu la woto yooyu daal di jóg junni ak fukk ak juróom-ñaar euh, boobule nag euh, group ñoom nag itam waat nañ euh, beneen lettre maanaam rek bataaxal ci rek ministre of lands regional government and religious affairs ak itam nag ministre of fishery and water resources ak Gambia tourism board Gambia ports authority and state on enterprises commission yi di rek sàkku itam ci yenn xibaar yoo xam ne itam ñu ngi ko bëgg am ci yooyu le rek sampeef ñoom nag jébbal nañu ko yooyu opposition maanaam rek barab yi nga xam ne wala bànqaas yi nga xam ne mu ngi bokk ci nguur gi mi nga euh, euh, gis nga euh, li nga xam ne moo bees lii di ab kuréel goo xam ne dañ ko samp yees ki nga xam ne sax mooy activiste boobu di Madi Diabate jiite ko muy Edward Edward Francis Small Center for Rights and Justice ñoom nag li ñuy sàkk mooy dañ bind ab lettre ci li ñuy wax access to information bill bi nga xam ne am na commission yu ñu taxawal ñoom nag bind nañ lettre office of the president ak yeneen ministre of ministries ci réew mi di sàkku li nga xam ne mooy leeral wala di official ñu joggé eh, muy juroom ñaar fukki auto eh, yoy ak juroom ñaar yi nga xamné ne nañ ko national assembly li eh, membres yi nan ngay jangaté lettre bi nga xamné ne saaf nañ ko office of the president di Wow, lool waaw jërëjëf Garme ehm, fo nga initiative bu bu am solo la xam nga tuba bi fay wax ne is better late than never Wow, ehm, mbir bi nga xamante ñu ko sakku pour ñu leerlu ko ci affaire yi pick up lu yàgg la dégg nañ ci lu nekk mm. waye pour ñu source bi moy fu mu joggé Eh, you know ken xamagul naka la dañ ne président bi mo len ko jox waye fim joge jógee bëgguñ koo leeral eh, xamna naa nag ku mën nga japp ñaar la motax Madi mu génn léegi eh, bugg a sakku lol mu leral lolou ben la benen bi am na commission bu ñu samp ngir ku bugg a leerlu dala ci nguur gi. am na foo bànqaas boo mun a dem. boo sàkkoo joxuñ la mën ngaa dem ci commission bi nga nga leerlu wala nga joytu pour ñoom ñu dimbale la. Mm. information bi nga soxla nga mun koo jot bu dee bi nga bi bi nga bu fekkee ne bi nga mun a jot la. Mm. léegi nag 2017 ba 2024. yàgg na yàggul. Euh, damay wax ne euh, xam nga affaire pick-up si euh, tey boo xoolee général yi. booy jàngat mbir mi da ngay wax ne ok Madi am na every right pour bugg a xam naka la waaye tey bokk na du moom kese moo bugg a xam tey tey jii am moto yooyu naka lañ ko amee waaye mbir mi lu ci nekk mooy dafa am tey ñi bugg a xam loolu naka la demee waaye démb mooy 2017 dañ ko nangu woon buggu ñoo liggante sax fan la yi fi jógee député la woon système bi ceeñ na li nguur moo ko joxee ne leen ko jox ñan ñoo ci bénéfice ak ñan ñoo jëlut boo ko xoolee foofu. am nañu sàkk woon jamono joojuñ nañ leeral fost soos bi kan la wala mbir mi fan la sokkee ko balaa ñoom ñooy jël waaye kan moo leen déglu ñu ëpp ci Gambien si jamono jooju wala ñu ëpp tey bugg a mbir yi leer xaw ma dama di bokk na ci am déet tey Demba support dañ supportoon mbir mi na ko président bi jox doxalee baax na leen jox député moto yi amuñ moto dañu dañ leen war jox ñu am li ñoo liggéeyee ak yooyu tey nag bu demee ba tollu fii. ñu samp commission bi nga xamante ne war naa fexe nit ñi am information boobu is good ñu test that commission also parce que ni ñu ko taxawalee ñu bari dañ jàpp ne fa am solo waaye léegi lu ñu leen di fay sax indi na problème ak yooyu waaye waruñ leen fay xaalis bu rëy bu fekkee ñoom dañ dañoo nekk foofu rek te Gambien si ñu test ndax ñoon lu tax ñu form wala ñu taxawal commission boobu ndax dinañ ko taxawee am not am am am déet parce que nag. you know ku nekkal lu ñu fay lu lu am solo léegi ndax ñoom am nañ that power for example bi na the and request that information we wait and see it should in case ñu bay ñu bañ te justifying lan mo tax wu information bi ban taxaway la commission bi am ci mbir mom will will see te lolu mo ngi si suñ kanam way nak euh, luñ wara mëna léral la ma di ak ñum andal sakku nañ ko ndax léram deet mm. lolu tamit leneen la. ñu wax ci leneen lu jëm rek ci yenn